bokk ak baay waaye itam defandoor xaleel yaa ko ñi fi defandoor xaleel yaa moom bari nañ suñ paree waaye man dinaa wax tuuti léegi man bi ma koo xam mag na waaye naa la bàyyi ñi nga xam ne ñoom la defandoor xaleel yaayam ñoom Pa Modou Fall kenn ki moom wax na la ak yooyu waaye man si li ma fekkee ndig ak lum lum néew ne itam xam naa ne maguma ba mag ma moo daan moo daan twenty years at least fekkee naa lu bari xamna mo dem school sen mairie ba mo play crap ay lan yeb xamna ko bi di xamna ko bu baax suma mag la won suma xarit la woon dëkka nañ and nañ tukki nañ ak yu ñu xam nak lu bari ci mom ku la bir la ku ga njabot la ku ga family ku ga xarit di dafa ga football benga nga xam motax lim am ci xarit football footballers nañ lim am si hari yëpp footballers lañ biri plena Black Diamonds White Phantoms ogos Indians walidan ñep le ñëpp na le way ñep la amal a jama bokku len tim way uh, su la gisee rek because footballer nga rek xaritam yalla mayoon nako lolu biri dafa open hearted si football sooy football a moom soo ko dégloo rek doo réer mukk waaye ñu bari nag xamuñ loolu si moom dañ dee foog ne li moo play di yuuxu oo di lii non yàlla daf ko meewoon mu mun ko xam ko kii alaaj ñaan mi xam na si dara a ñaanu toon soxoru toon ñoo ko xaloon naa lifin rek tuuti joxuñ ko woon gëddaam comme ni ko yeneen di koy joxee gëddaam mel ni que Sénégal Danemark Spain Gambia of late bi mu demee ba Philippines lañ ko génne waaye comme ni ko Danemark defoon Spain def Gambia defuñ ko ko woon xanaa individual si ñi moom footballal ñooñu respect nañ ko dinañ jéem def nañ ko waaye dëkk bi in general waaye su dee pour football rek la li tax ñu ko wax biiri mënoon na ko xam na because biir dafa amoon lu bari loo xam ne ñu bari amuñ ko woon biir left and right la woon bu nekk laa dribble bu nekk laa kigiyee ne noonu ne dafa juddu mun right develop left dafa juddu ak yëpp mun ko di ko dribble moo tax skill sim amoon yàllaa ko ko may du coach du dara ba pare mu bëggoon ko boobu coach amul Diri moom su ma buggee wax affaire am suba ba ngoon doo fi jógee waaye dinaa la wax tuuti rek ne la xol bu set la amoon ba buggoon dëkkaam dëkkaam jaraloon na ko lu nekk pour ñoo play fii rek jaraloon na ko lu nekk bii di mooy di mooy play professionnel mu óor ko ne mu ngee ñëw fii di play waari te su gaañoo dañ koo caaj waaye dafa play because ñu la sign yaa ngi play fële war loo ñëw di play fii waaye yooyu yëpp bugg a dëkkaat ñu ngi ko gis moo tax mu ko daan def fii suba ba ngoon suma suñu bi fii dafa bëggoon Gambia dafa bëggoon Banjul Gambia trop daf ko bëggoon ba pare doon def futbool bi ñoo wax daf ko mënoon bii du boppa du tànka bii di defender la midfield player la centre forward moom xanaa goalkeeper waaw waaye fu nekk foo ko def rek daf ko play te du la wax du ko play noonu biñ ko ooyee biri biri pele di lu mel la si kanam la doon play dafa play def li mo def yep da xa dem play di fen man Youssou Samba dem si ala si boppam moom ma ko suma mu ne ah, yow mun loo play bila gis na biir yow mun play suma ma raka demal demal demal seen kër lañ daan campé Youssou te ñoom xalaat mu ne eh, yow mun loo play waaye mu ne ma sarakat sama sama dafa téye bool ma di ko yuuxu paasal paasal paasal paasal mu bañ rek téye bool bi ba dem su kooku ma ne ko suma raka lii su dugutoon waaw wariwul mu ne ma biiri bañ ñoo paas maa ngi ko yuuxu biiri biiri biiri mu téye bool bi rek di kataa rek di dem maa nge daw di daw bem dugal ko si poos bi après mu ne mu jógee fanaw play defense daaxal ñëpp play defense kenn rombut bi sooy wax affaire am suba ba ngoon doo ko def waaye xam nga ñeneen ñu bari dangaa foog ne sama ah yow fam si tubaab yi ñooñu dañ ko respectoon dañ koo jox lifin sax chance pour mu décider leen seet seeta leen ak li ñoo lifin ay te mu ngi football ak professionnel dafa pour dañ koo jox chance ne ko xalaatal lii lii ak lii def ko man witness naa ko because maa moo fa nekkoon su ko mënutoon xamu ko duñ ko because dafa am benn coach boo xam ne mu ngi doon coach uh, dëkka bi dendoo suñ dëkka moo biiree def di same course ñu toog di waxtaan mu ne mu ne di dafa waste moom bàyyi na bu li moo am si coaching moo na biiri bàyyi duga si coaching bi mu ne moom mun bi mu gisee biir sa dafa tiit xamul ne biiree ngeen def na coaching course moo taxoon na mun see wax dara bii moom yàlla daf ko miyoon daf ko isi Gambia may ko may na ko biir kenn daaxu ko woon daw sprint meters in this country time am mooy woon di fastest moo am woon di best timing moom Pa Amadou Fa ko ñaan bi ñoo dem Dakar pour livin di best timing pour mu drop mu dem football moo ñu jël ñu ne biir mënoon naa daw am na doole bu ko dafa place suba Makati Square ngoon mu ñëw box ba place dafa play ba mu ñëw tëdda 2 3 mu dem 5 o'clock mu ñëw fii place wër na ñii nii ñëpp su ma paree naa la ñoom xam nañ si dara xam naa ne day yàlla mayoon na te li ko yàlla may Sénégal bañ ko doon coowee fa dee fa dem dee ña ko doon coow bii bii Pelé da Gambie fañ ko xamee ba gën ko ekati wala ko yàlla yóbbuwaat ñu moomee ko fa te xam naa ne ñoom suñ amoon li leen gënal dañ ñoo bàyyi ñu suul ko fa ah da seet lay jaw laay jaw lu nekk laa wasi bi wax na ko amut xaalis waaye lim am moo gën a neex xaalis nga def dara ba jeexal si ña nga xam ne xamuloo leen sax xamuñ la sax ñu ngi toog di mun a wax sa affaire di seet sa affaire te gisuñ la di la support loolu bariwul si ñu ko am si àddina si si dëkk bu mel ni civil man suma xarit boo xam ne toog nañ mu wax ma mu ne ma na biir yi Gambia dem dëkk civil lu mu bugg dina ko am mu ne ma man falaa nekka falaa li fi ne dama dee waxtaan su ma leen waxee ne maa ngi wadee toog duñ ko dee gëm moom dafa bëgg di biiri dafa bugg a dëkkaam lu nekk nga ko wax biiri rek biiri am nañ defal nañ ko record civil defal nañ ko record tuddee nañ ko baax def nañ ko maj def nañ ko la biiri li ñu ko respecté du dafa bari biiri yàlla daf ko mi woon waaye not ne yàlla daf ko mi waaye daf ko mi woon football mu mun ko bugga ko kii xam na si dara alaaji ñaan alaaji ñaan a ngi nii Keba Cissé ngi nii Keba Dayas ñii ñëpp xam nañ si dara buggoon na ko mun na ko biir soo ko winaan sax mu jooy ñoom ñi ñëpp a maaj mu tof be tof nga win ko mu jooy dañ ko daan di taab noppil noppil bàyyi loolu ñu nekk loolu dëgg la Alex ma Alex dëkk naa biir dëkk na suñ kër ñaata at ñi ñëpp xam nañ ko ñaata at moo biir lu mu la wax si biir rek am na biir daf doon ban biir bëggutoon ku ko win win non wu ko moom daal dafa foog moom moo war di win rek moom moo war di moom noonu la gisee woon game bi moo war di win rek li dañ ko daan win duñ ko winee bi nii boobu mu ngi Augustin dafa jooy ba tifi nañ luy problème dafa ñëw dafa mer lan la da ngaa win ñu win la tey nga ne yow nag yow kenn du la win te luy problème moom tim dafa ñaay suñ kër parce que suñ kër yi nii la dafa ñaay ni dafa jooy ba mel ni jigéen buy jooy dafa buggoon football ba pare mun ko moo tax dafa fiiloo nag ne kenn du ko biir lim sacrifice pour Gambia yàqaloon na ko lu bari loo xam ne man xam naa ko xëy na alaaji dégg na si tuuti waaye man xam naa lu bari ndig man ko ka ko yóbbu woon Denmark tubaab ba ko yóbbu moom moo wax yu bari ma dégga yu bari itam sacrifice na lu bari pour Gambia luusoo na ko lu bari waye nak bugal rewam mo taxone ku bugon Gambia la ak football waye duma ma wax yeb dina ma jël sen time yeb suma mag la play nañ together Denmark xam naa ko xamna ma te daf ma bugon daf ma respect yalla dafa def tax family family bi lu xew suñ ne nii mu dem leen ci bekay doomam yi sax suñ ne nii mu man duma si wax wax leen sen pop bekay Modou Ndiaye ak maa kool ki ñu tuddee suma moom soo waxee sax mu ma man ma suma pa yow laay waxaat ma ko waxuloo sa pa mu nañ wax ba pare man dinaa ko wax lu moo def rek daf maa wax man sant yàlla maa ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare àjjana yal dee di noflaayam yal na suuf seeta si kawam yal na bàmmeelam yàttu yal na bàmmeelam leer yal na ko yàlla àggal si àjjana yi gën a kowe yal na yéex ñun mi fi des suñ demee yal nañ ko fekk si taranga boo xam ne ñun ñëpp dinañu say jàpp si barke salaatul faatiha